jërëjëfati mbokk yi seetaan déglu xam ngeen ne gént dafa am solo ci dund doomu aadama yenn saay mu wane lu weesu lu ñëwagul ak luy nit di dund yenn saay mu wan la loo xam ni daf lay dàqal ngir nga moytu waaye loolu yëpp koy tënk mooy sarax waaye nit ki nag yenn saay daf koy gënt waaye day am jafe-jafe ngir ku ko mën a gindi ci wàll wi ràcc dal yi ñeneen ñoo xam ni daanaka rek saa su ne dañuy am yenn sarax yenn saa ñu sarax loo xam ni njeexital gi day indi leen jafe-jafe ndekete ku ci nekk danga nga biddéew woo xam ni moo lay gunge ci lépp loo xam ni dafa jëm ci sa wàll dund kon mbokk yi seetaan te déglu seen cabinet Biorahma daal di indil leen yoon wi nga xam ne ku ci bëgg rek daanaka jëm ci wàll wi mën nañ la ko daal di yombal su boobaa da envoyé 1000 francs ci orange money bi ci numéro bi 77 244 90 05 wala nga daal di envoyé wave bi ci 277 244 90 05 su boobaa nga def capture d'écran bi nga envoyé ñu ko ngir confirmer ne envoyé nga ko su boobaa rek ñu daal di la woo daal di la tekki li nga xam ni moom nga gént ras dool yi daal di la defal. lu jëm ci orientation ci vidéo ba lépp looy sarxiitu lu ne nga xam lan kon mbokk mi numéro baa ngi téléphone baa ngoog ci 77 244 90 05 nga daal di woy ànd ak ñun 1000 francs ci web bi wala soo paree nga def capture d'écran bi soo paree nga envoyé ñu ko ngir confirmer ne envoyé ko soo paree ñu daal di la woo defal leen interprétation des rêves jaa ngeen jëf mbokk yi